شهر وفي سفر أماني على ماني aouzu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah alhamdulilah xaqil mubiin man kaw nu xool yaay yabiin mustabiin maha jami nihami yi nu sant suñu borom subhaanahu wa taala julli ci sangam ba Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa ñaan sunu borom subhaanahu wa taala eh, alhaaji Cheikh Sidi Mokhtar yàgg fi fi loolu te waaye ñaan suñu borom subhanahu wa taala sëriñ sëriñ Abdou Fata moom sëriñ Cheikh Mbacke yàgg fi loolu tamit waaye ñaan itam suñu borom subhanahu wa taala euh, sëriñ Mouhamadou Moustapha moom sëriñ Mouhamed Mbacke yàgg fi loolu tamit euh, mbokk yi ñu ngi am tawféex bu yaatoo yaatu tawféex ju rëy teew ci pàkk bi nga xamante ni pàkku kenn ci njabootu sëriñ Touba waaye pàkkub sëriñ Touba la pàkkub sëriñ Madiba Sylla ku ko xamul dégg nga taarixam ci yoonu mu maa ngi koy wax léegi sëñ dan dama ko def bañ dëjee ndab ya sëriñ bi xool soxna si di xool ndab yi keroog la waaj waajtaay wu jekk woowee waajtaay woowu nga xamante ne ni ba maam Cheikh Rahane di wax ne yàlla mi ma moom moo ma ne Ahmadoo la moom raasi ko jox ko sa pexe da ko waxaale sëriñ Madi la ku dul moom boo toppul ci gannaawam da ngay seet noo def ba ànd ak moom sëriñ Tuubaa la àndal ko liggéey ba rafet mu dénk ko Cheikh Mouhamadoul Moustapha al Karim mu doxal ba si fi ñu toll mbay dat yàlla nga fi noo leen di siyaar bu baax ci bis bu tedd bi nga xamante ne dafa wax ne xarajtu yawma sabti saamini asar li xidmatil muxtaar fi chahri safar su ma doon la damay naan la nga dimbali ñu tuuti rek sunu maam ju tedd jooju nga xamante ne ni jikko yi dafa tedd te yaatu lool boo ko doon wax da ngay wax rek bu juróom-benn ba juróom-ñaar boo ne xaysun ne karimun ne taqiyun ne naasiun ne warixun ne nafun ne nafoon ne mafatul fu yóbbaati kan mooy sëñ ma dimbal waaw alhamdulilahi rabbil alamin xam naa xam-xam bi mënta doy ndax daa mel ne ku wax géej gi ñaata litre la ah, man nga wax naa géej gi bari am ndox waaye ñaata litre la neexu la wax xam nañ ci lu bari lu lépp rafet fekk nañ ci lu bari fekk na it lu bari mu jiitu nu waaye ñu nettali ko waaye lépp daal rafet na ndax sëñ Ahmadou Ba Sylla moom de fi mu dooree ak Serigne Touba Serigne Touba de dafa mu bis bu siyaare sëñ Matar ma sëñ Matar Marema mi nga xam ne mooy moo di ab soppeem di ab xaritam di mbokk mi teg ndax ñoom dañoo yàgg a wëlërante Serigne Touba waajur ba mu ngay nekk sëñ Mor Mor Mor Anta Sëlsi mu wërante nag mm, bàyyi sëñ Matar si la mooy mooy mooy Ahmadou waaw mat yëpp rek lañ koy wax mat yëpp nag moom moo jur sëñ Matar Mariam sëñ Matar Mariam jur sëñ Madiba si la waaw bi ñu koy seere nag ah, biñ si biñ dem ne ba yegg bañ waxtaan sëñ Matar daf ko wax ne ko demal fa sëñ demal fa sëñ Modou Male boobu sëñ Touba lay wax ndax ñoo ñaari mag la ñuy war waxtaan war a yendu waxtaan moom nag mu farle ko sëriñ Touba mu ne ko demal ci Modou Male muy leen nga waxtaan keroog bañ demee mu nuyoo ba noppi di si waxtaan suñu waxtaan mu yàgg sëñ Tuubaa sëñ ne ko ne mm, ko Amadou man dafa am lu ma ittiwoo lool loo xam ne ku ma ci dimbal daa sant lool sëñ ma ba ne ko sëñ Mata ne ko lan mu ne ko mm, yéen bi may dog eh, di jàng sun diggante kër jigéen yi dara dafi doxut te am bëggoon ku fi sutura mu ne ko ah waaw loolu de mën naa jàppandi mu ne waaw ndax ay am ay am nañ ngànnaay mu ne ko ah, waaw ngànnaay am na fi kay mu ne mel ne jees yi ak ak dabba ne sëñ bi sëñ Tuubaa ci moom moom moo jóg wutuloo ko dabba ak jees yi sëñ bi taale foofu dabba ak jees ji ci gannaaw kër gi fekk fi law mu dagg ci lu bari lax ko def ko ci naaj bi daal foofu dabba bi suñu soxla nga xam ne moo leen xappoon mu dagg ci lu bari ba mu digg sàkket woowee moog sëñ Tuubaa ñoo kon sàkket ñu samp xeer yi sëñ Tuubaa taxaw fii sëñ sëñ sëñ Mata taxaw fii ñu foog ko tax gi doxoon ci diggante bi taf ci nag laat yi takk di ko def ba sàkket ba yegg ma noppi ba toog tuuti mu ne ko Mataar mu ne ko Mbàkke mu ne ko li ma xam ci sakkiir bii ñu doon def gannaaw sama bopp yow laa ko gën a yéene waaye des na ko na ko def say say doom ak say sët loolu de xanaa moom mën naa nekk xanaa nekk na de <laughs> waaw loolu de moom ci njëlbeen gi am na gannaaw bi nag sëriñ bi des siwaat fi ci kër sëñ Matar di ko nuyu bay dem mu ne ko hmm, Matar yi dama bëggoon ci gone yi nga jox ci kenn ku ma yóbbaale mu ne ko yomb na mën naa mu set ci kenn ci nga xam ne moo mag mu tudd ko ko kooku nag mel ne boobu dese naa wér dese naa sawar waaye fekk moom sëñ Madiba moom bëgg lu ànd sëñ Tuubaa ndax moo fekk na ko yére yoo xam ne yére yi doomi borom barke daraak turki daraak ak ñi mu war a àndal yëpp waaye bi mu gis sëñ Tuubaa ànd ak borom borom naawal yi ak borom caay yi xel néewtu ci lii la jéem naa jéem summi li rek mënu ko bu ko jéem jéem sulli rek xam nu ba summi ko sol sol yi daa doo ngay sol mu bind ab leesar yónnee ko sëñ Touba ne dama bëgg nga wax sama baay mu boole ma ak yow mu jox ma la te fekk sëñ Touba laaj na loolu doyul mu dem ci sëñ Muxtaar ne ko dama bëggoon ma dama bëgg ak sëñ Touba ma mu ne ko loolu dinaa am loolu bu soobee yàlla ndax kat man sëñ bi dafa ne jox ma ci gone yi kenn bu jox ba ma joxoñ ko kenn waaye daa ko kooku sawul kon yow mi tàggoo nag yow yow laa yëm <laughs> yow laa yebal loolu ka bal moo na ñu wuti gànnaar loolee la dem ànd ak moom fekk boobu nag wér di la sëñ Tuubaa ci boobu njaq um, uh, ndab si mu daan defar xooje garab sëñ Tuubaa ci moom ndab dem kël kël suwén soosu nga daja xooj garab yoo xam ne moom moo ko daan sëñ moom sëñ bi ci moom mujj mu mu di ko jox xooj sëñ Madiba di ko xooj bi yàgg mu far ko farale le na am na benn bis moo xam ne sëñ sëñ Tuubaa ko woo sëñ Tuubaa nekk ci benn néeg maanaam ci keppaaru néeg ci suba gi ci suba gi cooy laaj lu mm, ndab loolu nga xam ne ko soxoojoon na garab ñu laaj ko mu dikk ñu ne mu ne Nguy mu ne ko kaay jëkk si mu jëkk mu ne ko naanal lii waaw reen lay dur mu naan ko mu jeex tàkk mu teg ko ko jege si mu jege si fekk am na benn campagne boo xam ne bi koo teg ci bétu sàkke bi ci soxtu suko ci wuy mu fab loxom mu fab loxom bi gàcc ko ko ba mu yegg si ndigg li nekk moom nekk moom di jàng alxuraan di jàng alxuraan di jàng alxuraan di jàng alxuraan ba naaj fekk lañ fa waaw ci suba keroog suba gi ba naaj ñaan naaj fekk leen fi ah xanaa yàgg dax naa loolee def nañ ko ba nag mu doog koo yeewee nag mu dem ca kii mu jox kël si ne ko nekk dee si xooj garab kël soo nga xam moo loon naane garab da koo jox as ma sëñ ko nañ dee ci xooj reen garab yooyu di ko naan ni ma ko defee rek ma la ko te ko yoon daal ba noppi ne ko nag de ko def de ko di ko xooj mu nekk moom ci daara jëng foofu naan na fa moom juróomi at ci gànnaar ba juróomi at yi ñu dikk Jolof foofu ci Ceyeen am na fa ñeenti at ñu soog dikk nag Eh, Jurbel bi njëkkee Jurbel nag boobu sekk sëñ bi daal woote bi wuyu nañ ko addina jëpp jëpp jëpp wussi ko alal jëpp jëpp jëm loo xam ci loo xam ne doom doomu aadama dina ko jëriñoo rek loolu ñu koy yële ci ko sëñ bi kopp yi nga xam ne mooy kopp yi yi sax ak kudd yi dañ koy def ay ay ay magasin dañ koy ay magasin lay doon suuxuñu suuf ruuxuñu lépp dañ ko ay magasin yi magasin lañ doon sëñ Modou Moussa wax sëñ bi ne ko lii fi ne de daa nur lu daa nur jeex dafa nur lu jeex ndax bari gi yéemu na waaye nag borom ko moom kat bu demee da koy bàyyi da koy yóbbaale ñëwoon dem wutub ciir ñëwoon dem wutub ciir mu ne ko bisimilah foofee la nga ma ci loxoom ñu àndam ci àll bi nag toj àll bi nag di bay nag sàq juróom ak sàq fukk di jën naari gooy di ko yar. di bind ay kaamil di ko yónni sëñ Tuubaa lépp di ko yónni sëñ Tuubaa ñu toj àll bi ànd tali bi lii def nañ ko sax ci nag dakk ba nga xam ne bii sëñ Tuubaa lim naaloon lépp amatul cawarteg yëngutooti ndax borom juróom-ñaar fukki at am na foo xam ko tolloo amatul cawarte ku too xam ne da na nga ci waxal tubaab yi juróom-ñaari at juróom-ñetti at yu manqué ñeenti weer fu ñu def ko ci wëccee sa war a too waaye nag kii ñëpp na loo xam doon na ko liggéey moom sëñ sëñ Modou Moustapha gàddu ko lépp doxi digganteem ak tubaab bi wax na nasaraan yi ne leen lu ngeen lu ngeen doon laaj sëñ Touba wala seen diggante lu ci nekkati laaj leen ma ko man te mbay kii moom mu noppalu ndax tëratu ko waaw lu ci mën nag lu ngeen bëgg a def rek def leen ko def leen ko joxoon dënd mi ne lu ngeen ci bëgg a def def leen ma ko loolu tax daw tekki guddi daw tekki ba ma nga Njaareem ma nga Dakar ma fu nekk te tubaab yi gën a bon ci kër àddina waxtu wala ñu ngi koy woo di ko laaj rek introsé rek di ko waaj di ko introsé rek loolu ci la nekkoon ba yàlla dogal nag app bi jege na nag woo na ko bis moom suñ Modou dumb suñ Touba woo na ko ne ko Mamadou Moustapha waaw ne ko weeru tam xarit bi de fu mu nittati nitt mooy ñaar fukk fu mu ñaar fukkati rek nag ma fekk foo nekk fu ma nekk nag ma fa fekk loolee basale na ko ay yoo am ay at mbir mi doo ko am mbir mi it bi nga xam ne yàlla dogal na am na sëñ bi it jóg na ci yoonu mel ne wut jëm noonu jaare kayal jaare ay sëkk dëkk sang dëkk sangam dëkk sangam dëkk sangam jaare ñaaxem foo la xëyee dëkk njëriñ ba mu dikkee laaj sëñ Matar sëñ Matar ma sëñ Matar si la ñoon ko motal sëñ Mari ba topp sax waaye ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk daal soxna Faati Maane ak sëñ añ sëñ Matar bu ñëwee ba noppi jamono mu ne ko sëñ bi nag mi mu ne ko waawoo mu ne ko mi ngi ko waawoo mu ne ko ndax gëñ nga ko gis mu ne ko du lool lool de waaye fan yi daa mel daf daa def def lu mel lam daan def ndax sëñ bi daan def léegi moom am ñetti fan di sukkoos léegi mu am ay bis yoo xam ne day nekk ci xalwatu mu ne ko daa def nu mel lu mu daan def te fekk na booba def na neneen waaye kii kii ñi laaj xam na kii laaj xam na mu yàlla ko ne ko enseigne bi mu ne ko mi ngi fi mu ne ko ndax man sa ko gis mu ne ko mu ne ko kañ ko bëgg gis mu xam ne nag pexe jeex na mu ne ko sàngam laa ko bëgg a gis fekk sëriñ bi woo na sëñ ma Masar moom benn ci ngoonu talaata wala ngoon altine mu woo ko ne ko tëj na ma bunt yi ceeb yëpp ñu ci bëgg ne ko yi ko yor yëpp. mu laaj ceeb bi yëpp ne ko laaj laaj ceeb ñu laaj ceeb bi moom di ko mën a ko tëjee buntu yëpp foofee ca penku nag nga tàmbali fa di tëj di ñëw mu di tëj ñëw ba yegg si eh, ban yàlla dogal nag xam naa am ci loo xam ne ñun ko mënuñu ko ñëw ñëwoon sax ñëwoon ko sax far waaye ba mu biram ba mu noppee da ko wax ne booy génn na nga tëjee di dikk na ngay tëjee gerte génn noonu la tëjee di génn tëjee di génn. mu wax sëñ Mourou Moussa ne ko ah wax sangam laa gëj a gis de te it mat naa seet ñoom ñoo ñoom ñaar ñu ànd fekk bu ñu dikkee dikk na ci bis waxtu yoor yor wu ndaw mu ne ko nag li nga xam ne moo war ci kër ngeen daan dépassé lépp ñël njël yi natt ko yëpp joxe ko rey gàtt yi bu fu fu ne la fa war dem dem fa loolu sëñ bi taat def na ko ñu ne ci loola am na sax ñoo xam ne ñi tudd ñu sax ay géwél ñu ngi tudd ay ràbb yoo xam ne dañ daan xalam. te daan ko def sëñ Mourou Moussa di di xalaat moom sëñ Mourou Moussa sax sol xol yeeg coono yi nit gaañ te moom fekk na xam ne li xew xam nga kooku day doon ak ki man loolu lépp mu muñ ko ci bis bi di ree ak ñi tàpp leen paso waxtaan ak ñoom def nii may ñi mu war a ne ay may def ñoom yëpp ba nga xam ne nag dégg nga guddi gi sori na la doog a tàmbali mbirum sëñ Tuubaa nag woo ñu war a woo ñëpp yëkkal ñu ko war a yégal ñëpp soog a dugg ci biir kër gi. dugg na fi sax lu jaaw lu mu anut kenn ku dul ma sëñ Matar ma ba noppi fekk na mu na mu na jëlee boppam fekk na benn lettre boo xam ne ko si loxo lay joor taf fii ci dënn bi sëñ bi yegg yëkkati loxo bi gis lettre mu jàng ko ba noppi tegaat loxo ba tiil lettre bi denc denc ker nee na si Matar Matar mu ne ko Mbàkke mu ne ko ku la wóoloo ngi Matar mu ne ko Mbàkke mu ne ko soppa ngi mu ne ko mataar mu ne ko mag mu ne ko doyloo ngi nii waaw ba mu ne mu ne rëg rëg rëg rëg mu ne ko mataar kii de bëggul bant bu dem dañ ko defal li mu bëgg foofee nag la di pexe moo wax ne pexe moo xam ne du wilaaya pexe mu pexe mu kajoo kajoo dëgg la la jël ñaari gaal yoo xam ne bu ci nekk dañ ko dañ ko raay xaalis xaalisu ngurdu jox ko ñaari taalibe ñu yenu ko mu ànd ak ñoom ak ñi sëñ Mourou Moussa àndal ñu ànd wuti dégg commande euh, euh, commandant ma yeggee ba nuyu ko mu nekk këram ñu nuyu ko ñu war nañu ñëpp seen baax ba ñu yegg ko man de mm, dama lay wax mbir moo xam ne mu bett la ndax euh, sunu kilifa mag gi fii dafa am lu mu dénkaane woon te moo noppaloo maanaam boo boo boo ñu la ba dañ ma fa yóbbu moom sëñ bi dafa noppalu léegi te waxoon ne boo fi bàyyi ko dañ ma yóbbu. foofu ñu wax Touba dëkk ba sax Touba waaw loolu day la waxoon man nag ma bëggoon ko tàggu ba noppi eh, lii xaalis la ma bëgg nga dencal ma ko ndax buñ bu lii feeñee jal jalaw jalaw dina bari ba mën naa laatu ma bëgg na nga denc ko sëñ bi nee na bi mu wax ak commande tubaab bi am na ci bi diggutu ko sax ndax xëy bii mu koy <laughs> xëy bi mu ko woon. Euh, moom bëggul sëñ bi wax li wax ba nangu ba mu dem ba ba mu seet xaalis bi nu mu koy tàggal pexe waaw loolu mu daal ko may sëñ bi nekk na foofu mu bëgg sëñ bëggoon fu ko fa yóbbu ko fa sëñ bi daal di woon gannaaw euh, euh, gaal yee yëpp ak lépp daal dem bi di bi di seet xaalis bi noonu lañ def yóbbu sëriñ bi Touba sëñ Matar nee na loxo ba nga xam moo la kon bësee bës nii waaye bayu ko ba nam yeggee Touba ñu defee nii di ko ni ko di ko ko ba si yaram bi ba yiwu ko ba na mu yëgatu woon waaw ñàkk ko laaj daal ñoo ko tax ñoo ñoo ko tax ñoo ko laaj daal di ko yóbbu ci këram ñoo ko tàqaleeg loolu cooñ nag sëñ Moudou Moussa nag nekk ci mbir mu rëy moo xam ne mi mu rëy rëy moo xam ne mu garaaw la ñii xañ ñoom sëñ bi bàyyi di ay rakk ñoo xam ne ñoom ñépp ay borom doole lañ sëñ Tuubaa tabb ne ba nga xam ne bi kenn ku ne doole yu rëy rëy nga yor sëñ Modou Moussa nag di doom moom waaye di di ndaw di dugg ci àddina du def lu mu wax ñun ànd ca nag moo tax mbir ma diis metti waaye yàlla dimbali ko ak barke sëñ Tuubaa mi nga xam ne moo ko doon liggéey na ko ba loolee noppee yóbbu sëñ def ko ñu a def sëñ bi nag daal di li ko sëñ di basale woon moo di jumaa ji moo di njaboot gi ak taalibe yi lii la ko basale woon Ahmadul Basir mii fi nekkit bool na ci dénkaan ya topp yoral ma Ahmadul Basir mi toppatoo ma ko bu mu tuum rànk mukk sëñ Basir mi sëñ Basir Mbàkke toppatoo ma ko bu mu tuum rànk mukk loolu moom bokk na ca dénkaan ya loolu nag moo ne wax tudde sañ bi tudd àll bi cooca cooca mooy tax wax la ànd ak sëñ Madi ba ànd ak seen waajuru sëñ Bay Fallou ak sëñ Fallou Saar sëñ mm, ndaam sëñ mudloo ndaam mbirey ak euh, sëñ bay sëñ fal sëñ bay saar ñoo ñëpp mu dalal leen nag ci àll bi kenn ku ne mu dal fo ba ñenn nekk kër den kër baaba naa fàtte ko sañ ñu sant mm, xam naa li fàtte waaw sëñ Moustapha Fall waaw sëñ Moustapha taw Cheikh Ibra ñooñu ñëpp mu san ci àll bi kenn ku ci nekk fa ko daal Touba Fall Touba Fall Touba Fall moog Dërëman benn la Dërëman euh, ak euh, dëkk yu kilifa yu mag yi rek daal loolu lépp bëgg li ñu liggéey ci àll bi ngir jumaa ji taxaw moo tax loolu am na jamono yoo xam ne sax dañ doon peese buñ buñ bàyyi ba noppi dañuy dikk foofu ci peñum Dërëman mi ñu def fi bës gi kilifa gu ne nekk nga yéen sa gerte ñu peese ko fa ñu doon def ba loolu defee ba nga xam ne jumaa ji lañ ko. te doyagul moo tax mu toj nag fi sànnitu boo sëñ Bay Falloo nga iraada sëñ sëñ ma nga ndaam sëñ Rijaal Sekk ma nga gerle ah, sëñ ban sëñ waaw mu ngoogu kilifa yëpp war koo daal ci àll bi wër ko ci bi kenn ku ne liggéey di liggéey rek di indi liggéey rek di indi amul kenn sëñ Modou ba daan na wax ne jal bii nga xam ne def ko ba noppi ku mën a waat ne doo ci yëb doom dinaa mën a waat ne dara du ci teg sëñ Modou Moustapha daana wax li leen tam euh, toj ci doom toj doom toj bopp Seex Sila mii mu laa yemale toj bopp doom ci gerte gi ak toj bopp doom Seex Sila mii doom doomam doomam ñoo laa yemale kenn ñi mosu koo ñeme di jëy yëy ji kenn mosu koo ñeme buñ mosaa ji gerte gi dañuy topp bi di topp bi di topp bi di topp ba timis marché ba reer jot bu tooba ñu desee mooy la seg leen fa larmeel ya ñoom ñëpp da ngeen ëmb seen seen seen seen seen i mbubb ci ci làmb ngeen yegg suuf di làmb doog tooba yi tooba gu ñu ci gis def nañ ci ñaar kéem bu suul koog seen loxo suul koog seen noonu lañ ko def suul koog seen loxo xam nga loolu doy ki man de ah loolu xam nga looy ki man la te amu ci dara loo xam mbay menn moo xam ne muy muy jedd fenn déet xet xalaatu sunu yaay yi suñu bopp takkaay yi ñu fi indoon ci kër gi jël na ko yëpp yëpp jox ko sëñ Modou am na daara yoo xam ne ñu wax daara jibi ja defe naa yoo xam nga jibi ja ba dégg nga ko boog foofu ñu wax nii la wanaaloo nii ak fu ñu wax tan biwul ak fu ñu wax neema am na yenn daara yu ndaw waaye yaay daara yooyu nag ñoo gën a ñoo gën ñuy wax nii la wanaaloo at men ca njëkk def def nañ ci téeméeri bëri téeméeri mètre euh, duub ak fanweer ak ñett yoo xam ne yaataay bi ni ñeenti mètre la guddaay bi ci ko ñaari mètre la gudd gudd nag téeméeri mètre ak weer ak ñett at ma tund ba yëpp dañoo bojj bojj bojj bojj munuñ fi dara mujj wuñu luñ di gas di suul gas di suul gas di suul ana waxta boo xam ne bi ko doon di yóbbu Touba nawet da ko noor doon ci noor bi ba nawet waxta yooyu nag du waxta yooyu moom ñaar fukki bëri googu fan yooyu bëri googu ñooyu loolu doon loolu waaye roñ na ba ba euh, sang bi mu mel ne kon hmm. euh, buñ la déggee yaa ngi leeral ne euh, li wolofal ba wax ne mbooleem lu gaynde jur ba mu wax day fàdd rek mbaam yi toj yax ndax xarak bay duñ toj yax doolee ñaloor ma toj xalam mu mel ne kon liggéey ba rafet na ba agsi fii nag léegi fi ñu toll tey ji mu mel ne kon euh, Cheikh Modou mo Cheikh Modou Fadal woote na màggal gi euh, ci ndigal wajuram bu baax wa àndoon ak magam bu baax bi euh, tey ji nag Cheikh Seck ñëpp di woote màggal gi tey di bisu màggal gi nag nga xamante ne ni moom la ñuy sant la Serigne Touba borom waaw waaw loolu de moom ndax màggal gi ñaari màggal la te ñaari màggal yëpp rëy te ñaari màggal yëpp am solo bu njëkk gi mooy wàcc si wax amul bamba mooy gën weesu gi nag mooy ñibbi gi mu ñibbi soon ca jaayaar ba noonu jeer naan yi moo tax nag bi sëñ Modou sëñ sëñ Modou Moussa di nelawee fekk sëñ Touba sëñ Fallou di defar jumaa ji la wax ne bis bi ñu sëñ Touba santaane woon ne ko la yàlla dama bëgg ñoom ñëpp fekk sama fii ci Touba ndax ñu ma song liggéey bii ndax sëñ Mudu ma faan sëñ Mustafa na ko ba mu yegsi fii mu yegsi ci damaa bëgg mu yegg daa dam daa wax ne mag gu mag gi nga xam ne mooy gu njëkk gi nag may naa may naa ko Cheikh Mbacke mii moom ko fare woo nag moo waral lii ah, gii ko wax képp bu nekk dañoo sant loo man nga def ko ba jéem loo mun man mii nga xam ne mënu ma dara sax waa Dakar ak ñëpp dama leen sant na leen jigéen bi ngeen sant naa la nga beri bañ a bañ a ba bari bokkut ak daayira yi ka ak dañu bañal bañal bu bari nga indi ko ndax bëgguma kenn ku xiif du gone du mag du ndaw bëgguma ko xiif na ndox mi doy na ñam wi doy nañ yëkkati xasaay yi ku mën sax alxuraan da ko jàng loolu moom lañ fi doyee loolu nag ci nag yaakaar naa nu mu tolloon daaw ëpp na ko te loolu nag lañ fas yéene jëm kanam ci barke sëñ Modou ma nag mi nga xam ne moo ko yeyoo te moom lañ mooy mooy mooy adduna moom sëñ Modou ba la liggéeyal sëñ Modou ba la liggéeyal moom nag sëñ Tuubaa la liggéeyal suñ mbëri bi lañuy ñuy liggéeyal waaw léegi nag sëñ mi mooy xalifa kër gi moom nag yàlla daa dogal ñu am ak soppante ak xaritoo goo xam ni doomam boppam bi góor maa ngi moom maa ko yor mi ngi jàng fi man jaxasoo nan lool ba ni gone ba léegi magante gi amul solo waaye yàlla dañu jubale nu juboo lool ba bokk lépp léegi itam mu def ma ci kanam mbooloo mi may jëwriñam mooy xalifa bi mu sunu kilifa waaye nooy noo jëru ñoo xam ne ñu ko fas yéene liggéeyal ndax lam bàyyam amoon ci ndam moom tu mu am ko loolu lañ bëgg. dafay mel ne abqa salaamay karimi samadi ala nabi wa salatu muhammad <laughs> ala nabi wa salatu muhammad abqa salaamay karimi samadi jërëjëf kon kilifa jaba faati bu bëgg na lool jërëjëf si kër gi siyaare si këram waaw siyaare si itam njabootu sëñ Madiba di sàkku ñaan itam ngeen ñaanal ñu gën a am di ngërëma sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul li ñuy sàkku jërëjëf jërëjëf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 allahu laa ilaaha illaa huwa al-hayyul qayyuum laa taxuzuhu sinatun wa laa nawm lahu maa fi samaawaati wa maa fil ardi min sha'nihi yas'alun illaa bi-iznihi ya'lamu maa bayna aydiihim wa maa khalfahum wa laa yuhiituuna bi shay'in min ilmihi illaa bimaa shaa'a wa sa'ahu yàllaahu yaa rahmaan yaa rahiim yaa mughni yaa samaawaati wa yaa al-ardiina lakal hamdu wa laka subbu wa sanaahu ala rasuulinaa bika al-doktor nasara wa anfal baydina اللهم يا من أغنيتني بك وبكتابك وبرسولك وبشرك المسرور المستور صلي وسلم وبارك وسلم وتكفيني أزل البقاء والخدم أزالي شيء ما سار إلى يوم القدم وسر من يركب ساسلا وسر ما يتم تاجا وسر من يجلس بالكلام وسر سيدجهن وسيقيا وشر من ينفس في العقود وسر ساهن وسيجهن بك أخذت يا إلهي أصدا وعية وأقربا وأسودا وعاقدا ونافسا وصارخا وآئنا وساهرا وطارخا والإنس والجن معهم حنيهم شميهم قد اسمهم فيما بحل في الجي لفظ لا حول ولا قوة إلا بالله الأولى ونجني من شر ساكن البلد وسلك لوالد وما ولد وتكني شرف من وعيني وتكني شرف من وعيني كل من قصدني بالعين ونجني من سوء كل شالم وسلك كل جاهل وكل شامت وكل ناطق وكل معرق وكل تارق وكل آسم وكل فضل وكل قائد وكل شاعر وكل طائر وكل ماشي وكل خمل وكل فاشي وكل حسد وكل شاني وكل جبار وكل جاني ونجيني يا من تعالى يا مجيد من شر الجن مع الشيطان المريض وشر القرب وشر النعي والحر والبرد وشر الماء bismillahi lazi la yaduru maa ismi shay'un fi l ardi wala fi samaa'i wasm allahuma salli ala sayyidina muhammadin alfaatihi lima uqliqa walxaatimi lima sabaqa naasiri lxaqi bilxaqi walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi aqa qadrihi wa miqdaari asin barke Sëriñ Tuuba barke Sëriñ Tuuba barke Cheikh Mamadou Sa Mbacké barke Cheikh Mbacké barke Sëriñ Mbacké barke Sëriñ ba Sëriñ Muxtaar xalifa Sëriñ Tuuba seen daraja ak seen baax yàlla yaa xaj suñu teg suñu ma yërba شهر وفي سفر أماني على ماني